lii mooy li nga xamante ne en ce moment moo am chef poste bu jëkkëram oto baa ngi nii di jaar oto oto la buy jaar bu ñu ko doon xajal buntu ko Ousmane maa ngi nii buntu ko Ousmane gis ngeen combien j'arrive à les avoir ñoom cela montre que ngi ci buntu presque buntu ko Ousmane à moins de 20 mètres de chez Ousmane les forces de défense et de sécurité ñoo ngi nii di dans toutes les tous angles et toutes les entrées ñoom ñoo ngi bu ko defee ngeen xam ko rek lii lañ ne woon aussi dinañ leen ko wan on travaille difficilement, mais quand même nous tenons à vous informer, à, dire, à vous dire ce qui se passe en ce moment ici à la cité Kerkouki.